أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul ballaga arrisala wa adda al amana wa nasaha al umma wa kashafa allahu bihi al ghumma an hadhihi al umma wa jahada fi sabili rabbi hatta ataahu al yaqin أيها المستمعون الكرام والمستمعات يحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu santee borom bi tabaraka wa taala julli si sangu-sanga yi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp jàmm fa tabarakallah di ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla nañu defal jàmm di ñaanal suñu réew mii di senegal yàlla na fi yàlla def jàmm def fi xéewal di ñaanal mboolem jullit bu nekk si kaw àdduna fi maqa fi mashariqil ardi wa magharibaha ñu ngi leen di ñaanal borom bi tabaaraka wa taala yàlla na yàlla def jàmm fa tabaarakallah kon niñ ko gisee rek tey muy màggal gi nga xamante ne fa tabaarakallah moom la Serigne ma Combaan di màggal yonente bi sallallahu alayhi wa muy gàmmu daaru alfa yàlla dogal mu nekk tey muy li nga xamante ni mooy le huit tabaarkalla si février bi 2022 di ñaan borom bi tabaaraka taala niñ ci duggee bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko terminé alhamdulilahi rabbil alamin di wax ni nag suñu góor gu tedd googu di sëriñ Serigne ma Combaan yaakaar naa bu ñuy wax si moom fii ba suba fa tabaarkalla duñ fi joge kon nag fa tabaarkalla buñ bëggoon xam tey kan mooy maam ma Combaan yaakaar naa jarul muy gudd dañ naan man alfahima combaan huwal muallimu wal mudillu wal murabbi fil xayraati wa taati lillah kon yaakaar naa bu ñu yemoon fii rek xam nañu ki nga xamante ni mooy Serigne Alfahima Combaan ndax sëriñ Alfa Combaan jàngalekat la woon tegtalekat la woon yarkat la woon te lépp ci lu baax rek la daan digal fa tabarkallaa nit ñi fii taatillaahi rek la daan digal fa tabaarkalla ñi nga xamante ne nii ñooy taalibe yi sëriñ Alfahima Combaan nag yàlla dogal na la mu dogal ci moom muy walliyu boo xamante ne fa tabaarkalla walliyu kaamil la du kenn koo xamante ne fa tabaarkalla dañ koy naataable wala ñu koy laajte kon ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka taala yàlla na ñu ko yàlla fayal fa tabaarkalla nag moo waral li nga xamante ni fa tabaarkalla moom la ñuy màggalee guddi gii nag. ñu jagleel ko sang bu tedd bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ku ci nekk xam na ni bi ñu yàlla suñu borom nammee amal si leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla suñu borom amale moom la góor gu tedd gi naan Cheikh Seydil Haaji Malik mu ngi naan wa innahu iz araada allahu nach'atana abaana min nuurihi nuuran nabil alam kon kat leeru sayidina muhammad sallallahu alayhi wa wasallam si la yàlla suñu borom amalee kon war na si ñun ku ci nekk nga delloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ni mooy njukkal yonente bi nag daan na wax ni kii gën a soxor ci nit ñi mooy kii dégg sama tur te waxul sallallahu alayhi wasallam ndax boo waxee sallallahu alayhi wa sallam yiw fekkale ci nga bañ ko wax muy ak soxor te nag ku ci nekk xam na ni nit ku soxor du dugg aljanna kon fa tabaarkalla te nit boo soxoree kat doo doon ab sanga kon foog ñu bàyyi ci xel kon fa tabaarkalla rek di dénk tamit ndaw ñi li nga xamante ni fa tabaarkalla mooy diine te xam ni nit àdduna boo fi nekkee nga gis ni kat fa tabaarkalla jamono yàqu na dangay ngay fexe di njëkkalante ci li nga xamante ni mooy lu baax moom la yàlla suñu borom naan fastabiqul xayraat kon njëkkante yiw wu baax rek moo fi nekk. ndax yàqu-yàqu te jamono bi suñu borom tabaaraka wa taala di ko wax kenn xamul kañ la ndax yàlla suñu borom moo waxoon ci alquraanul karim mu ni bismillahi rahmaani rahim mu ni zahara alfasaadu fi lbarri walbahri lan la ci teg bi maa kasabat ay naas mu ni yàqu-yàqu te jamono bëri na si géej géer gi te lépp ci loxo doomu aadama yi la joge kon mbokki jullit yi ñu jàngat ne jamono kon lépp luñ fi dégg rek du bàyyi ma yi ñoo ko def doomu aadama yi ñoo ko def kon képp koo dégg ni faat nañ nit doom moroomu doomu aadamaam moo ko faat bépp ñaawteef boo fi dégg rek nit moo koy def te yàlla suñu borom li mu bindakat nit moo ci gën ndax yàlla moo ne wala xad karram naa bani aadama yàlla kon kat bu teralee doomu aadama est-ce que doomu aadama xam na ne ko yàlla suñu borom teralee ndax weesuwul yàlla suñu borom teral la nga xëy di noonu ak sa waajur yàlla suñu borom teral la nga xëy di wax sa waajur naka ci dul noonu ndax loolu teral bi la yàlla suñu borom teral kat ndax yow yaa ngi ciy delloo njukkal kon nag ndaw ñi nañu delloo suñuy xel ci borom bi tabaaraka wa laa te wax kat réew buñ ci nekkee ku ci nekk danga nga war a xool li nga xamante ni moo koy jëmale kanam fa tabaaraka la nga jëmale ko kanam ndax boo xoolee ñu ngi jëm ci li nga xamante ni fa tabarkallah mooy wàllu élection yi ñu jëm nii fa tabarkallah ku ci nekk ah fa nga far ku ci nekk nag man nga màndu ba fa tabarkallah nga def la nga xamante ni moom ngoy def muy dem vote ji te jàmm rek am ndax damay faral di wax ni nit ku nekk bu la jàmm yëkkatee fa tabarkallah di nga def jàmm mais bu la safaan yëkkatee fa tabarkallah mbokki julli di safaan rek ngay def ndax ku ci nekk nag na bàyyi xel ni nguur du nit moo koy fal boppam du ay doomu aadama tamit moom ñoom lay neex ñu jël nit falka ka ndax loolu bu amee rek buñ jàppee ni nit mooy fal nit rek kon fa tabaarakallah dañuy weddi waxu borom bi tabaaraka wa taala te waxu borom bi tabaaraka wa kenn du ko weddi ndax yàlla suñu borom moo ni qul illahumma mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir kon ñu gis ni nguur yàlla suñu borom fa tabarkalla moo koy fay kon lu yàlla suñu borom di fal mooy xool ku ko neex mu fal la ko yàlla suñu borom nag bu nammee liggéeyloo ni rek nam mën a la fay kon fa tabarkalla loolu lépp guddi dinañ ci ñëw gën a yaatal lu bare bare bare si point yi nga xamante ni yëpp indi nañ ko incha allahu rabbi di ñaan borom bi tabaaraka wa taala yàlla defal ñu jàmm defal ko mbooleem jullit wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu